Bebe Jen Bay Manjon Bebe Jen Bay Manjon balancement de bras balancement de bras l'expérience de Baye Mandione face à la jeunesse de Bebe Jen fii national arène nationale ndeysaan Bébé Diène ci defet la jógee Baye Mandione jóge ci defet moom itam Baye Mandione mu ngi mujj bëre ak Saloum avertissement verbal pour les deux avertissement verbal pour les deux lutteurs avertissement verbal pour les deux lutteurs arbitre sifflé waat na arbitre sifflé waat na diggante Bébé Diène Baye Mandione Bébé Diène à droite Baye Mandione à gauche Bébé Diène à droite Baye Mandione à gauche Baye Mandione n'a rien à perdre dans ce combat il faut que Bébé Diène jël initiative parce que moom ma bëgg Bébé Diène dafa war a jël initiative moom ma bëgg dara Baye Mandione amatul lu muy perdre meb na meb na cokaas na mais dalul cokaas na me jalul cokaas na me dalul cokaasaat na dalul jàpp na tànk ba hee hee jàpp na tànk ba Baye Mandione Bébé Diène Baye Mandione Bébé Diène Baye Mandione Bébé Diène ku nekk am na ngem ku nekk am na ngem ku nekk rotation rotation rotation rotation rotation rotation Bébé Diène Baye Mandione Bébé Diène Baye Mandione faxataat na ko faxat na ko penalty penalty daan na ko Bébé Diène daan na ko Bébé Diène daan na Baye Mandione Bébé Diène daan na ko Bébé Diène songu na Boy Kairé Bébé Diène songu na Boy Kairé Baye Mandione dafa daan Boy Kairé ñaari yoon ndeysaan Baye Mandione daa daan Boy Kairé ñaari yoon Bébé Diène vengel na ko tey Bébé Diène vengel na baayam tey Bébé Diène vengel na ko ñaari yoon mais boy bi feeku na